réfléchir defar ba mu rafet. mais am na ñoo xam ne bu ñu bëggee ay réformes fii la ñuy ñëw Sénégal ñu ñu réformes et puis pour man loolu mooy défi bi gën a mag ci. association a de donc pour cette fois-ci il va falloir qu'on aille jusqu'au bout ñu bañ a yem rek dans dans les simples ñu poser des actes forts. Mm-hmm. allant dans le sens que ces assises là soient et puis au-delà faire faire d'autres assises pour mm-hmm. d'autres secteurs de la vie mm-hmm. comme ça alors euh, sànq tudd nga lu am solo muy gouvernement des juges. Mm-hmm. Euh, le président wax na ci ñu ngi dégg itam. Mm-hmm. yeneen i acteur politique et et justice ñu siy wax. Mm-hmm. tey gouvernement des juges da wax nan nan nga koy expliquer. déjà xam nga il faut ñu comprendre que ne. justice euh, c'est un pouvoir. ok aussi indépendant que les autres pouvoirs que le pouvoir législatif que le pouvoir exécutif mais bu ñu falee njiitu réew ñuy wax kat kii kii lañ fal. moom mooy diriger moom mooy joxe. Mhm. le tempo man kat dama am un programme dama am une nii laa bëgg ñu doxee ko mhm. donc kooku nag quoi qu'il puisse avoir dina am benn benn droit de regard par rapport au pouvoir de la justice au pouvoir judiciaire mhm. donc dina ci am ay joyanti comme nii dina ci am ay gis-gis pouvoir euh, gouvernement des juges bu ñu koy wax d'habitude c'est pour dire que par exemple que exécutif bi day raxasu carrément ci lépp li nga xam ne justice la. du ci voilà génn conseil supérieur du ci am benn benn gis-gis. loolu risque bi mooy genre juge yi ñoom ñooy am doole boo xam ne ni dafay mel ne juge yi lañ fal. Hmm. mais nag pour équilibrer un peu les pouvoirs comme ni Montesquieu il faut que par la force des choses que le pouvoir arrête le pouvoir. Hmm. loolu Diomaye wax na ko déjà le président de a eu le dire et puis ñi comprendre les signaux ki qu'il qu'il émet mooy hmm. c'est ça. dañu leen bàyyil benn marge de manœuvre mais duñ ci génn carrément. ba nga xam ne tey quoi qu'on puisse dire dañ naan euh, justice daal am na indépendance totale ñoom ñooy xalaat ñoom ñooy def en fonction de ça mais nag dinañ mettre des mécanismes yoo xam ne tey par exemple moi je dis que loolu compliqué wul il va falloir qu'on qu'on qu'on rectifier un peu. Mm-hmm. parce que yenn principes yi c'est des principes déjà qui sont là parce que li ñu wax la rek question problème mu euh, adaptabilité problème mu matérialité de ce qui est ce qui est dans sur la table la ñu am mooy lan déjà. sur le euh, conseil supérieur de la magistrature tey bu ci président de la république génne mais mën nañ ñëw mu mais mu am benn kii consultatif rek. Mhm. mu xool ah li ñu bëgg par rapport ak yi ñu bëgg. voilà observateur bañ see am benn pouvoir bu déterminant c'est possible parce que euh, apparemment sax de regard surtout. mais bañ a am yenn pouvoir au niveau du euh, le juge te loolu defe naa aussi mi ngi ci réforme yi ah te réforme yi sax euh, assise sax foofu la gën a jëm genre le pouvoir qui est donné au procureur de la République mhm. parfois qu'on qu'on institue des juges de liberté parce que gars yi quoi qu'on puisse dire am na fu ñu jaar ak ñi mhm. xam nañ ne li ñu dund bëgguñ xëy na peut-être sénégalais yi dund ko donc yooyu yëpp ay jooyanti loo xam ne jàpp naa ne bu ñu fa yeggee peu bi gars yi di am par rapport au gouvernement des juges ak yooyu du am na président euh, xoolaat euh, kiyam les juges ak euh, surtout par rapport carrière magistrat carrière en général voilà c'est ça effectivement et loolu pour pour faire un un autre qui glissement genre nous également dans ces assises là on propose déjà que la carrière des travailleurs de la justice Et quand je parle de travail de la justice, c'est à partir de l'administrateur des greffes, le greffier, les, les, autres, les autres agents, les interprètes et tout, qu'on une direction en bonne et due forme boo xam ne mooy gérer suñu ay carrière parce que ñun depuis les quoi depuis le CFJ centre de formation judiciaire le plus souvent ñi nga xam ne ñoom ñooy présider entre guillemets à vos destinées sont des magistrats parfois certains méconnaissent en réalité euh, le ce que nous ce que nous vivons voilà hmm. donc day mel ne benn téléguidance la quoi donc il va falloir mettre la bonne personne au, au bon poste donc ñun am nañ des administrateurs de greffe qui sont de la hiérarchie A1 hmm. sur la question par exemple du reclassement des greffiers bi nga xam ne déjà bokk na ci lu ëpp euh, li doon indi instabilité ci ci ci justice bi muy grève bi parce que l'État nous impose une formation une formation que nous, nous avons jugée inopportune. Comment se fait que moi qui viens de faire 10 ans de greffe, euh, ma ñëw ñu ne dañ may former formé waat pour ma nekkaat greffier. ñu formé waat ma yóbbu ma école d'après euh, kii bi mu génn circulaire bi pour une formation de 12 mois un an je quitte euh, les juridictions pour aller à l'école pour 12 mois pour réapprendre ma mon métier ce que je sais déjà. te exercé nga ko pendant 10 ans exercé jàpp nañu seen une beneen bi mooy impact bi muy am négatif bi muy am sur nit justice war a doxe tey je dis n'importe quoi tu prends on est 472 greffiers tu prends une cohorte de 300 ou bien je dis de 200 mais tu délaisses 200 travailleurs dans les juridictions ñoo xam ne matuñu sax mais lan moo waral ñu ne da di defal formation non c'est-à-dire que yooyu lañu waroon liggéey ci un an boobu dindi nga ko dindi nga ko voilà. citoyen ngay pénaliser. oh oui déjà que dañu am problème greffier yu doy. nga wàññiwaat ci. mais mais lan moo tax lan moo tax ñu ne da ngeen di defaat formation est-ce que dafa am problème ci liggéey bi wala dafa am lu ngeen waroon def te defu li ko indi mooy. dañoo eh, dañoo rehausser dañoo eh, eh, kii de de de recrutement bi quoi. niveau bi voilà au au début c'était bac plus 2. maintenant c'est la licence. mais soo ko jëlee. genre renforcement de capacité la si c' était ça du sax causer problème. du sax causer problème parce que am na état am na ay mécanismes ñu mën a jaar formation en ligne et tout. mais dañ ne formation boobu sax sa sa ne doit pas résulter uniquement di fait qu'on a réussi le niveau de recrutement. mais c' est une formation que nous demandons chaque fois parce que les choses ne sont pas figées et puis le droit c' est c' est c' est une matière qui marche. voilà donc tey man li ñu may jàngal ñi nga xam ne ñooy nekk hiérarchie A2 suñu ay. collègue promo yi nga xam ne suñu ay collègue greffier ñun ñi nga xam ne ñoom ñoom ñu ñoom ñoo ñu supérieur hiérarchiquement parlant ñun ñoo leen formé c'est nous qui les avons formés qui les avons donné les rudiments du métier donc ñun boo ñu bëggee former uniquement pour pour ñu yóbbu ñu add day causer problème parce que le métier déjà on l'a reform ñu ñu jëlaat ñu yóbbu ñu hiérarchie A2 sans formation mm. mais dans le cadre d'une formation continue kon voilà qu'on qu'on essaie de de par rapport à certains manquements par rapport à voilà à, à, à mise à niveau des greffiers ou bien des autres personnels de la justice qu'est-ce qu'il y a lieu de faire mais vouloir te loolu jàpp naa ne pour pose pose nañ ko si si assise yi mm. et apparemment c'est aussi en bonne voie les gens ont compris l'aberration de vouloir voilà yóbbu yi formation pour un an à prévenir être greffier donc euh, gars jàpp nañ ne mën na ci indi ay saafara te espérons que dina dina demee noonu beneen bi mooy pour les agents de greffe et mooy euh, benn corps bu bees la bu ñu bu boo xam ne am na ñoo xam ne dañoo nekk tribunal yàgg fa. ñun sax bi ñuy ñëw am na ñoo xam ne ay AGP la parfois ñu lay wax métier bi ah nii la parce que toujours booy doog a ñëw dina am benn temps de flottement boo xam ne mm-hmm. di am ne voilà moo boo amee humilité wu dem laaj dinañ la yoo xam ne c'est pas c'est pas des greffiers et puis mm-hmm. xam naa bu ñu seetaanee dinañ xam seen bopp mm-hmm. fa laay naanee ataay fa laay et puis da nga siy jàng ñooñu c'est des gens yoo benn instant amuñu woon benn plan de carrière boo xam ne nii dañ leen ko tegaloon maintenant avec euh, la création des agents de greffe et parquet maintenant dañ leen di jël former leen former leen après dugal leen fonction dugal leen ci ci ci ñu am benn plan de carrière bu extraordinaire boo xam ne ni peut-être dina leen permettre ñu épanouir dans ce qu'ils font. Mm-hmm. donc loolu tamit je pense que gars yi ñu si proposé nañ ko effectivement apparemment c'est c'est en bonne voie espérons que au sortir de ces assises là que tous ces petits problèmes là parce que jàpp naa ne euh, doxinu justice doxinu réew mi waruñu ko plomber sur des sur comme ni imam parce que li nga fi wax moom je pense que problème avancement la. Mm, voilà c' problème yi dafa nekk na yeneen jafe-jafe yu ngeen di jànkuwanteel yoo xam ni teg ngeen ko ci table yi. sur le plan statutaire mooy yi ma doon wax léegi mooy reclassement yi. et quand je parle des greffiers je parle également des ADG les administrateurs de greffe. mooy ñi nga xam ne tey par exemple ñun ñooy suñu supérieur hiérarchique ñoom depuis 2014. dañ leen yóbbu école former leen parce que boo gisee sax greffier yi di bañ formation yi. Mm. dafa am lu ñu gis nañ naan bund kundo bin rey sa maam soo séenee lu ñuul nga daw. Mm. depuis 2014 imaginez au moment où je vous parle. Mm. Euh, les ADG sont moins de sept. certains sont malheureusement décédés certains sont allés à la retraite il reste sept à peu près sept ADG 2000 depuis 2014 la leen état formé jusqu'à présent ils émargent en deçà de leur hiérarchie normale. donc mu nekk affaire bu extraordinaire donc sur le plan statutaire boo gérer euh, les ADG les administrateurs de greffe et de parquet les des administrateurs de greffe nga gérer le statut des greffiers vous faites le euh, le nivellement par le haut vous les mm-hmm. vous les vous repositionner à la hiérarchie à 200 mm-hmm. formations vous mettez en place euh, les AGP mm-hmm. côté statutairement parlant peut-être fi ñu toll ni amatuñ ci beneen beneen beneen beneen kii beneen préoccupation mais sur le plan indemnitaire Euh, dañ ne le greffier le greffier doit loger dans le ressort de la cour d'appel dans son ressort de la cour d'appel ressort bi nga war a kii ku la état bi moo la jox loolu loi bi moo la jox loolu te greffier bi amul indemnité de logement te ñun ñëpp xam nañ euh, logement dans les régions quand on di ressort de la cour d'appel c'est c'est c'est minimum benn benn département mm-hmm. donc nga nekk fa amuloo par par exemple indemnité de logement loolu problème la. beneen bi ñu ñu bëgg la imposer fi nga beneen bi mooy euh, salaire bi ngay bi ngay bi ngay bi ngay jot dafa néew lool par rapport ak charge de travail bi ak le rôle crucial que tu joues dans la dans dans la justice donc jàpp naa ne boo régler problème statutaire war nga ñëw jublu ci problème mu euh, euh, nu mu tuddati problème mu salaire problème mu rémunération suñu ay. prime yi nga xam ne dañ koy am prime yi c' est les primes yu ma doon wax sànq yu am retard 4 mois mais également les fonds communs de greffe fonds communs yi day dem parfois ba day am ay retard de cinq à 6 mois loo xam ne normalement chaque 3 mois da nga ko war a jot da dem ba dugg ci cinquième mois te doo ko jot donc y' a pas mal de choses yoo xam ne ni tey jàpp naa ne euh, ay jubbanti rek la laaj ay réajustement la laaj buñ ko réglé li ëpp ci problème mu en tout cas travailleur de la justice dinañ ko réglé. donc statut statutairement fonds commun yooyu greffier yëpp la travailleur de la justice yëpp la. waaw travail wala nekk ci UNTJ. non non non c' est c' est travailleurs de la justice tous les travailleurs de la justice et puis wax ne euh, du du du justice rek ko am na ah, impo am na ko. yeneen yeneen kii voilà hmm. yeneen douane am na ko quoi hmm. donc voilà. d' accord alors lan ngeen proposé euh, yéen greffier yi balaa may ñëw ci imam euh, hmm. ci assises yi yónnee woon nga ma benn liste boo xam ne def ngeen ko. mais ñëwaat ci pour ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu di ñu seetaan yéen. solution ngeen proposé ci assise de la justice yi. bon yi ñun déjà bañ ko bañ ko bañ ko wootee rek depuis le trois le président de la république lancé assise yi ñun dañoo commencé liggéey parce que jàppoon nañ ne te loolu lañ jàpp léegi. Mm-hmm. mooy assise yi dafa nekk une belle occasion pour régler pas mal de problème que jàpp naa normalement bu ñu jugee ci assise yi. Eh, Sénégal leneen la ñuy wax. Mm-hmm. mais dootuñu wax problème mu justice. te yéene boobu la am. ci ci mm-hmm. loolu la liggéey trois trois mois. yoo xam ne la trois semaine je veux dire. Mm-hmm. yoo xam ne liggéey nañ pour mettre en place benn document moo xam ne mooy nekk suñu document référence tey ku nekk si ñun mënoon nañ la jël nga dem si assises yi la ngay défendre donc xam parce que tënk nañ ko ci ci ci ci ci benn kayit ci benn document bu ñu la jox beneen affaire bi ci am solo mooy document boobu euh, tous les travailleurs de la justice. Mm-hmm. amul séparation amul ki amul greffier amul interprète amul information ñoom ñëpp ñoo boole ci seen ay amical ci seen ay syndicat mhm. indi xeltu ñu indi ko dañoo commencé par benn diagnostic te loolu moo normal xool lan lañu war a joyanti ci justice ñu xool de manière transversale yamuñu rek ci ñun justice ci ci ñun greffier wala travailleur mais justice dans dans dans dans dans sa globalité lan moo ci nekk comme comme source de problème ñu ñu génne ko buñ ko génnee ñu ñu xool ne ñaar la ci côté yooyu am na si yoo xam ne si organisation la ak fonctionnement mais am na si yoo xam ne organi manque d' organisation ak fonctionnement dafa am benn impact négatif par rapport au justiciable par rapport à l' accueil à l' orientation ñu pare nag par des recommandations et c'est la partie la plus importante parce que il sert à rien de fustiger sans pour autant mettre en place euh, voilà quelque chose mm-hmm. sur les recommandations c'est 26 points et dans les vingt six points on a été transversal wax nañ ci lu jëm ci accueil orientation parce que euh, le le greffier ou le, le travailleur de la justice le greffe mm-hmm. euh, c'est le premier contact du justiciable bu ñëwee tribunal mm-hmm. et man je dis souvent que ne tribunal ak euh, hôpital dafa nekk ñaari bërëb yoo xam ne mënul ñàkk te dañoo bëri lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu nduroo mm-hmm. ku fa dugg mooy surtout tribunal bi ma gën a miin nga tooñ wala ñu tooñ la da nga am benn jaaxle bu nekk si yow kooku su ñëwee dafa soxla ku ko dalal ku ko orienté. Mhm. ku ko teg si yoon. accueil bi donc accueil bi ak mhm. orientation bi am am na solo ñu wax ci ay bureau yu ñu fi ñi nga xam ne déjà am na comme ni ñu koy waxee toujours ah. le texte et la voilà mais dans la pratique il y pas mal de manquements ñu joyanti greffier tey war nga war nga mën a ñëw dugg tribunal soo duggee tribunal bureau accueil opposition rek accueil ngay yem ak orientation am toutes les informations yi soxla. soxlawul dem fëgg hmm. fii xaar maa ngi hmm. buntu bureau maître Ndiaye maa ngi buntu bureau non ñi ngay ñëw fii ñu wax beneen mooy digitalisation si hmm. tey mën nga toog sa kër sa téléphone te te ah, man de am naa benn problème j'ai j'ai voilà j'ai j'ai les documents que yi ma soxla mi ngi nii scanné naa ko j'en j'envoie le tribunal réceptionne dugal ko ci benn kii damay ñëw ñu ne ah tel déposé nga tel dossier mat na wala matul tel jour nga war a ñëw donc informatique ak matérialisation boobu def nañu beneen mooy li ma fi li ma fi wax sànq ba léegi te lool def naa ki naa ko développé naa ko mooy ñi nga xam ne ñooy supporter ces réformes là que que ces personne la que ces acteurs là soient mis dans les conditions de performer ki dalal nit ku ku ku am procédure ñëw wala ku jaaxle ñëw ko kooku ci boppam dafa war a dafa war a daal dafa war a <laughs> donc il faut mettre ces gens ces gens là voilà c'est ça donc loolu aussi wax nañ ci beneen bi mooy environnement ak sécurité euh, boo demee palais de justice tey bi ma gën a palais de justice ñëpp xam nañ ce ko appelle les rabatteurs mm. euh, chaque fois nga xool si presse bi nga dégg ne waa am nit bu ñu jaay benn casier judiciaire à cinquante mille mm-hmm. cinq cent mille affaires yooyu voilà c'est des choses qui existent que que que nu nous nous déplorons parce que euh, demoon na ba waa ji yore casier judiciaire bu bu bu Dakar dafa bindoon foofu benn ngan di affiche ne casier 500 francs rek la wala 200 francs rek parce que 200 la woon léegi 500 la pour dire aux gens de ne pas céder à ces à ces pratiques là donc ñu assainir ce timbre la timbre donc ñu jéem assainir de sorte que ces rabatteurs là ces personnes qui n'ont absolument rien à dans les alentours des des des, des juridictions ñu jóge fa pour une meilleure prise en compte des eh, des sollicitations des des citoyens beneen su le plan sécuritaire parce que tribunal bu Dakar boo fa demee mine de rien y a plus de deux cent et deux cent personnes yu fa nekk kooku parfois nga gis. Euh, ay ay accident yu xaw a yu xaw a yu xaw a doy war man ñu mës naa benn collègue bu jigéen bu ah, voilà non dafa amoon problème eh, eh, perte perte connaissance et tout euh, ñun ñoo gaawantu jël ko les premiers secours yóbbu ko et après heureusement euh, ñoo ci gën a yey ñu déglu leen. Mm. que keneen. Mm-hmm.